À l'établissement Baye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Baye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Baye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre

de l'exposition en prélude du Magal Fatelikou Julie Gueye. Aussi nos remerciements et l'expression de notre profonde gratitude vont à son Excellence, Monsieur le chef de l'État et à tout son gouvernement pour le concours, les concours, je dirais, décisifs et déterminants ayant permis d'organiser dans les meilleurs auspices la présente édition. je ne saurais passer sous silence ma profonde reconnaissance et remerciement au khalife général des Baye Fall sëñ Cheikh Jëmm Fall ah! yàlla na fi et la grande famille de Cheikh Ibra Fall qui se sont dépensés sans compter pour la réussite totale de cette journée à l'unisson Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur le ministre d'État Mbaye Ndiaye et toute l'équipe de Monsieur Abdoulaye Diop qui sont ici présents. Je vous remercie de votre aimable attention. jërëjëf maa ngi ziare ñëpp di sant ñëpp. di ci jiital nag sëñ Cheikh Jëmb Fall. ndax wax dëgg yàlla dem naa ko siyaare bi joxe na ci ndigal ci bis gis ngeen ko yéen ñëpp. Baye Fall yi taxaw nañ sëñ ñëw na ak njaboot bi yëpp ñëw nañ wax dëgg yàlla kuréel gi sant na bég nañu ci taxawaay di sant nag ministre d'état di sant ministre d'état Mbaye Ndiaye ak délégation ministre de la de la communication mu teewal fi président laaj di beral cant président ak gouvernement bi yëpp ndax wax dëgg yàlla ku gis mbir mi nee nañu ci wolof cin balaa neex bu baxee xeeñ dëgg wax naa ne bu ñuy wax sëñ Touba bi su sëñ Touba te waxoo maam Cheikh Ibrahima Fall mu des bunt bi mooy maam Cheikh Ibrahima Fall kon nag wax dëgg am nañ ci yaakaar bu baax rafet nañ jot bu ko defee ñu dalal suñu gan bu baax a baax bu bu ñu jullee ci bis ba noppi dem ba fajar nag di sant rek